Sénégal yegg tey jigéen ñi ñoo ko fa yóbbu bu Sénégal avancé dafa fekk jigéen ñi ñoo taxaw te loolu démb la ba tey historien yi wax nañ ko depuis talaatay ndeer ba ci tey ji jigéenu Sénégal mosuñ dalu ginnaaw moo tax ma man xam naa li jigéen def pour ñun nit ku ne mën nga seede li sa yaay def ci yow waaye yokk naa si ne seede naa it fi ma sama na féete te loolu góor bu ne war na ko mën a wax yokk naa si ne jigéen ñi nga xam ne yàlla boole na ma ak ñoom muy yéen ñi xam naa seen taxawaay ak li ngeen def ci man ba ma nekk fii ma nekk tey kon jërë ngeen jëf Merci beaucoup. yaram daw na ni ko ay Mansour Mbaye di waxee yaram daw na waaye sama teewaay fii mooy won leen tey la ñuy taxaw ngir jàppale leen jàppale jigéenu Sénégal lima ma bëgg a wax duma ko mën wax ci français ndax li may yëg ci communion bi ma am ak yéen français mënul génne looloon bég naa daal ci yéen kontaan naa ci yéen maa ngi leen di xamal ni am na lu ñu def jërëjëf merci beaucoup man daal yàq sama discours dama koy tëjaat ma mu jëkk su ma suba conseil des ministres ma wax premier ministre wax ak Fatou Diané ci li nar ci programme bi ngeen ma jox mu jógee ci assise nationale nga xam ne fukki région yi ak ñeent ak diaspora bi ñu bañ a fàtte diaspora bi lan lañu wara war def ngir yokk taxawaayu état bi pour que taxawaayu jigéen gën a jëm kanam ci Sénégal danañu gën a dooleel kuréel yi nga xam ni ñoom ñooy financé jigéen ñi ak kuréel yi formé jigéen ñi yooyu yëpp daañu leen dajale li ngeen wax itam ci quota yi ñu war a jox jigéen ñi ci lépp lu ñuy séddale danañ si bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que nag jigéen ñi ñooy majorité ci biir réew mi kon jaadu ñu jox leen seen wàll ba mu mat sëkk maa ngi gërëm madame la ministre liggéeyam rafet na vraiment maa ngi koy encouragé mu continuer ci nii boole ñëpp uuf ñëpp muy jigéenu politique di jigéen société civile di femme rurale rawatina les femmes rurales ma bëggoon leen beral loxo ndax ay jàmbaar lañu te seeni liggéey metti na lool kon incha maa ngi sant waa ONU danga bi xam ne ay partenaire lañu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox rendez-vous nag ci kanam